benn mbas dugg na ci sunum réew ñu di ko wax coronavirus muy jàngoro ju gaaw lool ci lottal doomu aadama ci lu matul juróomi weer dong rey na lu ëpp ñaar fukki junni doomu aadama ci àdduna bi moom sax dinañ ko wax covid 19 ba tey jii nag yàlla dogal na amaguñu lu wér lu koy faj moom jàngoro ji mu doon lu gaaw ci wàllante ki la koy wàll nag mooy ki ko am ba noppi di jaxasoog yow mbaa nga dem di jaxasoog moom ndax mën na la ko wàll sax ci buy sëqat mbaa mu laal yenn bagage yi ci kër gi te ñu koy faral di ko jëfandikoo moo tax ñu fonk lool bëgg lool ñuy seetal kër gi ba ci bitti ak lépp lu ñuy jëfandikoo docteur yi saxal nañ ni ki amee jàngoro ji laal bagage yi kër gi bàyyi ko ca mën na caa am ay waxtu jàngoro ja di dund mbaa ay fan ça dépend rekk ci degré tàngooru kër ga mbaa degré seddaay bi looloo tax ñuy sàkku ci ñépp ñuy setal mbooleem li ñuy jëfandikoo ci kër gi ak bépp liquide boo xam ni dafay rey ay microbe moom jàngoro ji nag day suy dugg doomu aadama ji da koy dikke lu mel nekke am socc mbaa muy tàngal yaram wi ci boppam dana ñëw sax ba di ko dikke muy tissooli tissooli gu metti lool ànd ak di sëqët sëqët su metti mbaa mu yokk tàngooru yaramam mbaa mu dugg ci dënnam mel na lu ko fatt mu am jafe-jafey nooy yi gën naa metti nag ci képp koo xam ni dala fekkoo nag nga ame jàngoro joo xam ni dafay tax sab xol di faral di metti mbaa sab dën yu mel noonu mbaa nga amee jafe-jafey rein mbaa nga ame woon feebaru xol bu yàgg lool mbaa mu doon mag gën naa mette ci ñii ma wax waaye nag moom jàngoro ji ci boppam ku mu dal mbaa nga seetlu ko ci sa bopp nanga toog ci sa biir kër ngir mën a muccal ña ca des maa nga jokkoog waa kër doktoor su fekkee seetlu nga ci lu mel noonu mu dal la waaye nag bul sàggan mukk li la ciy muccal mooy nuy faral di raxas sunuy loxo ak saabu ak bépp liquide buy rey microbe nu lem sunuy loxo bu ñuy sëqat fàtt ko ci sunu kanam ba duñu ko wàlli keneen nu moytu di laal sunuy bët ak sunu gémmiñ su fekkee sunuy loxo setul ki nga xam ni yaakaar na ni da ko dal na wattandiku di jaxasoog doomu aadama yi ndax jaxasoog doomu aadama yi mooy tasaare feebar bi ba mu gën a law ci sunum réew te loolu mën nañoo lor nanuy setal kër gi lool di setal sunuy jëfandikukaay te toog ci sunuy biir kër ñun ñépp ànd ak loolu di julli di ñaan sunu borom ngir mu musal ñu ci wopp ji di jàng lu baree bari alquraanul karim ak di jégglu yàlla sunu borom lu baree bari naam jullit ñi ñëpp bëgg nañoo daje ci jàkk ya di jaamu yàlla comme nañ ko daan defee waaye nag gannaaw luy tasaaroo la te day lor askan wi nu toog sunu kër rekk loolu nag du tax mukk nag ñu fàtte sunu borom tabaaraka wa ci biir kër gi na du yokk jaamu sunu yàlla yokk di jégglu yàlla yokk di jàng alquraanul karim ndax loolu kat bokk na ci lu nu ci muccal waaye nag bu kenn fàtte ñi nga xam ne ñoo féete ca daara ja doon ay ndongo doon jàngalekati alxuraan ñu bari ci ñoom gannaaw yàlla lañu yaakaaroon mooy génn wuti lu ñu mën a dunde jamono jii nu toll nag kër yu ci bari tëj nañ seeni bunt génn yombatul mu am jafe-jafe lool ci yenn daara yi ngalawaay bu leen kenn fàtte nañu leen di dimbali te yàlla tax ndax saa ko ceeb mbaa fukki dërëm ji nga yëkkati yóbbu ko ca daara ja mën nañoo fanqal musiba yu ñu waroon a dal ci suñu àdduna ndax loolu mooy kàddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na sanaa'i almaarufi taqi masaari'a suu nee na jëf yu baax yi ni jëflante ci sunu biir mën nañoo fekk ci bépp balaawu àdduna